jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la depuis Brooklyn New York tey nag dama ñëw defal leen benn vidéo ci Barthélemy Diaz bi ne dafa bëgg nekk meeru Dakar loolu nag xibaar bu neex la bu ñu neex a neex te ñun gëm nañ ne Barthélemy Diaz moo war a nekk maire de Dakar surtout bu fekkee ne mook Sonko dañoo lënkaloo ñun li ñu gis mooy Barthélemy Dias maire de Dakar Ousmane Sonko président ndax gis nañu ne Barthélemy Dias Macky Sall da ko doon jéem a néewal doole ngir mu ñàkk Mermoz waaye depuis ba Ousmane Sonko affaire Adji Sarr bi ba mu amee ba léegi Macky Sall doon jéem a néewal doole nit ñi far yëf yi këpp ci kawam dañoo gis ne Ousmane Sonko dafa gën a am doole ñu ne ko nag élection yi nga xam ne da ko doon dàq par force di ko def. ñun sax décembre la ñu bëggoon mais décembre ak janvier gis nga Macky Sall bu ñu demee tey ba mu ne élection day am lii mooy wane ne nguur Macky Sall nu mu meloon dootu ko mës a mel gis nañ nag Amadou Ba moom tamit mu ne dafa bëgg nekk maire dafa naa maire Parcelles Assainies la bëgg nekk gisoon nañ fii ne euh, nu mu tuddati waa APR ñoom dañu commencé di si seen seen biir ba May Ndiaye génn mu ne amadouba Ba bu yóbbu mu def ndànk te xam ne mënu fi nekk maire mais balaa muy wax ci loolu nañu sax wax rek ci Barthélemy Dias ñëpp ñu ñëpp ñoo ko war a jàppale ngir mu nekk maire Dakar te Barthélemy nee na Macky Sall li nga bëgg am li nga bëgg def du jàll Dakar bi nga bëgg caxat caxatee dagg Pikine dégg nañu euh, Sarak Aliou Sall mu ne dafay dagg technopole euh, Pikine ah taqale ko. ak euh, géejawaay waa Pikine nag nee nañ ko du ci dal waa Pikine nee nañ ko du ci dal ñun li ñuy wax rek mooy koor gi moo taxoon kenn deful manifestation kenn yënguwul waaye fi mu nekk koor gi jeex na gis nañ nag ñuy jéem a néewal doole Ousmane Sonko di ko jéem a booleeg Muridi di wax naan sëñ Mountakha daf ko toroxal ku mel ne jàmbal Diagne nga xam ne moom léegi dafa mel ne ci APR la bokk dafa mel ne Macky Sall moo ko jël di ko fay xaalis ngir muy dal ci Sonko ndax moom nee na ba mu demee euh, Touba euh, sëñ Muntaxa daf ko daf ko toroxal ndax Sonko dafa yàgg bëgg dem ci sëñ Muntaxa waaye saa yu demee sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa du ko bëgg dalal vraiment ñii ñun daf ñu koo xam ne sëñ Muntaxa daf ko gërëm ne ko budul woon yow ndax yow dama laa ñaan nga teg lépp ci suuf nga teg lépp ci suuf. tey ñoom ñu bëgg a wëlbatiku di wax naan sëñ Mountakha dafa toroxal Sonko di wax naan képp ku fi dee safara nga jëm gis nga nit ñi li ñu war a comprendre mooy sëñ Mountakha munul wax ne Ousmane Sonko euh, moom moo euh, tax xale yi dee ndax sëñ Mountakha sax waxul loolu sëñ Mountakha kay li mu war a wax mooy budul woon Ousmane Sonko te sax loolu la wax nee na budul woon yow dama la laaj nga teg yëpp ci suuf nga teg yëpp suuf loolu mooy budul woon yow xale yu bari dinañu dee ñoom waa APR lu ñu war a xam mooy gis nga Macky bu yóbboo mu mu def ci boppam ne dootul am jàmm fii ak deux mille vingt quatre li mu bëgg troisième mandat Youssou Ndour di ko ci jàppale ñeneen di ko ci jàppale loolu ngir mu jàll dina metti lool lool yàlla nag mooy joxe nguur yàlla mooy joxe nguur waaye ñoom bu ñu yaakaaree dañuy ñëw rek ne dañuy def Dakar ñu foqati ko. ne léegi ñoom ñooy nekk maire dakaar ndax gis na ni ñu ñu sacrifier Khalifa Sall waaye di nga jéem a yàqal nit yàqal Khalifa Sall ndax Khalifa Sall xam naa ne dañ ne dootul mën a bokk waaye gis nga Khalifa Sall day jël um, Barthélémy Dias teg ci wetam ndax Barthélémy Dias Sénégal yëpp ko bëgg waaw bu ñu jógee foofu xalifa Sall gis nañ Sonko dem ci moom waxtaan dalee leer na ñoom dañuy def coalition tey Sonko bu nekkee président mais Khalifa Sall war na mën nekk premier ministre gis nga même Karim Wade sax dafa war a ñibbisi dafa war a am fulla mu jël avion mu ñibbisi bu ñibbisee Macky Sall lan la koy def daf koy tere euh, dugg Sénégal daf koy jël dugal ko ci kaso bi Macky Sall fi mu nekk ñemeetul dugal kenn ci kaso bi gis ko nag mu ngi France Macron woo leen lii moo tax nag ñu bëri di wax neen Macky Sall tant que li fekk ñoom ñi ngi sukkandiku si France ngir mu dimbali leen ngir bu dimbali suñuy suñuy suñuy suñuy dëkk mel na France moo ñu moom duñu mës a am jàmm Macky Sall mi ngi France mais li mu war a xam mooy dafa war a ñibbi ci Sénégal fii mu jéem fexe xale yi liggéey waaw xale yi liggéey nag gis nañu euh, Espagne te rek laa yow dégg Maroc ak Espagne lu mat six mille um, um, immigrants dañoo jóge Maroc dem dugg Espagne mooy seen miir boobu surtout foofu dëkk boobu nga xam ne dafa am ay ay ay ay suñu ay doom yu bëri ñu ngi fa loolu daf lay war ne xale yi ba léegi mbëkk bi bàyyeeguñ ko gis nga yaa même pas euh, deux jours dafagul sax ñetti fan dégg nañu ne euh, am na ay xale yu jóge Mauritanie dem Espagne seen bateau seen gaal am problème waaw ñun li ñuy wax daal mooy en tout cas Barthélémy Dias ñun ñu ngi koy encouragé léegi nag li ci des rek mooy waa ñoo lànk li ci des mooy may MDD Ousmane Sonko il faut que nit ñi parewaat ndax élection yi xamuñu ndax sax dinañu nangu Macky Sall def ko euh, janvier wala ñun dañ ko war a imposé mu def ko euh, décembre deux mille vingt et un ndax dix commandements yi kat li ñu waxante woon ak sëñ Mountakha mooy ne Macky Sall il faut que mu def élection yi Macky Sall il faut que mu wax ne du def ñetti mandat Macky Sall il faut que mu bàyyi xale yi nga xam ne dañ leen jàpp ci kaso yi ndàmpaay ñi ci jot dee il ñu jox leen ndàmpaay na Mbaye lan moo tax Macky Sall saa yu fi nekkee day dig day dig day dig mais li muy dig yëpp du ci def dara te gars yi dinaa la benn affaire nawet baa ngi ñëw gis nga xanaa Macky Sall ñaan yàlla taw bi bañ a mel nu mu meloon daaw waaye gis nga taw bi bu meloon nu mu meloon daaw nga xam ne Kër Massar yëpp dafa taa Géejawaay Pikine foo dem taa loolu tamit mën tax nit ñi génnaat ah man daal xam naa ne xam naa ne Ousmane Sonko nag wax nañ ko te loolu du mu ko taay di wax. moom moo tax sax Macky Sall tey am fit di jël avion di dem ci Macron wala di toog naan damay dagg dakaar rek damay euh, Aliou naan dañuy jël Géejawaay dañuy jël Pikine taqale ko ci Géejawaay ñun lañuy jaaxal mooy yéen ñetti at rek moo leen dese ñetti at 2024 kon loolu fi nekkee di dagg ay di dagg ay ay ay ay ay di dagg ay Géejawaay di jéem a di jéem a euh, def loo xam ne tey élection bu ñëwee day yomb ci ñun loolu moo ñu jaaxal ñun loolu moo ñu jaaxal ci ci makki Sall ci al Aliou Sall gars yi daal lii benn vidéo la rek bu ma def bu ndaw ngir wax leen ne xeex bi jeexul ñoom Macky Sall bu ñu yaakaaree ne fi mu nekk lépp nooy dañuy nax seen bopp c'est vrai que affaire aj Sarr bi xëy na li ma wax moom la ñuy def ñu jéem ko gal gas ci suuf gas suuf ci suuf gis nga ndax booba ba léegi déggatoo ñu wax ci Adji Sarr déggatoo maître El Hadj Diouf juge bi Samba Sall ba mu gaañoo ba léegi lan moo tax ba léegi jëluñu ko ko utu parce que xëy na amaguñu koo xam ne dina nangu ne dafay tëj Sonko waaw loolu moo tax wala xëy na ragal na ne bu ñu jëlee kenn nit ñi dañuy commencé di def affaire mystique wala di ko di ko soriñtu wala lu ma xamul mais lii wóor te leer daal mooy deuxième vague bi ñuy bañ man gëm naa ne bu ñu sàgganee dina am ndax waa APR dañoo dëgër bopp ñoom la ñu gis fan nii ñoom ñooy génn di dal ci Sonko gis nañ fi góor gi ndong génn dal Sonko gis nañ fi Moussa Sow Kogère génn daal daal daal ci ñoom ñoom seen biir ñu ngi xeex ndax gis nañ waa Cogère ak waa réew mi Idrissa Seck Touba ñu ngi fa nekkan di sànnante xeer di di xeex waa Cogère gis nañ leen Tambacounda ministre ba nekk fa ñu nekk fa di sànnante xeer kon ku la wax ne dëkk bi dina am jàmm te gis nañ temps waa APR lu ñuy wax nee nañ waa APR nañu génn ñu préparé wu ñu jàmbarloo ak ñoom Ousmane Sonko gars yi daal lii euh, vidéo bu may def la rek ngir wax ne Barthélemy ñun ñu ñuy wax ñu ngi koy souhaiter bonne chance te ñun yaakaar nañu gëm nañu ne incha allah moom la ñuy fal maire de Dakar Ousmane Sonko ñu def ko président incha allah jaajëf gars yi laaj leen partager leen abonné leen bis see ngeen am foofu ba beneen merci.